tura musa baji maa ngi represent am um, uh, party agent la maa ngi represent NPP wé si polling station bu nekk campement fi bañul Not. yes suñ propose bu nek fi moy dañu register dañu ya register voters joxe voters card ci joxe voters card dafa am recommendation yo wara am pour am voters card da nga need a birth certificate sa ko amuté da nga need ID card sa amuté ID card da nga need a passport pour qualify pour ñëw put support us card understand nga te Gambian si ñu nee na ñaan ñu nekk si kër bi te toog di xaar di waste time nañ génn si ñu xam ne voters card bi dafa important pour ñu am ko ko sa right la pour nga am this voters card kenn mënu la ko aaye if you da nga need a voters card te lii sa right la da nga need lii pour am ko understand kenn du la ko mën a aaye soo amee lu ma lan wax nii soo amee sa voters card sa ID card ak sa passeport da nga qualify pour ñëw ñu register la nga am sa voters card fii soo maa ngi ñaan ñu toog si kër bi ñu génna si ñu ut seen voters card ñu xam ne dañ am right to vote because soo votutee si government bi nii ah doo mun a wax dara si dëkk bi waaw ñii dañoo toog di decide yow ne ah booy man votu ma ah doo am dara looy wax loo gis rek nga xam ne yaa ko teg sa bopp waaye soo voté yow yaa amee sa choice pour ne man lii laa bëgg a understand nga soo maa ngi ñaan ñu toog si kër bi ñëpp ñu génn si ñu ñëw ut si voters card ñu am right pour vote